ki nga xamante le mi ngi déjà ci contrat en cours. Mhm. Euh, euh, gis nañu prix tarif yi ko organiser. dem waxi ko fay. Mhm. wala bi euh, informer parce que d'habitude les bailleurs ñom duñ wax dara dañuy comme avantage bi ci locataire bi locataire bi mhm. donc locataire bi fin du mois ku doon da ngay dindi directement quinze mille yi muy quinze pour cent. Mhm. nga fay bailleur bi quatre vingt cinq mille. bu bañee jël. su bañee jël day indi problème boppam. pourquoi mhm. parce que bu bañee jël xaalis bi mën nga ko yóbbu fi ñuy wax caisse de dépôt et consignation. Mhm. nga jaarale ko par voie d'huissier wala nga dem tribunal ne da nga ko bëgg yóbbu caisse de dépôt nga fay timbre 2000 ñu bindal la courrier bi autorisé la nga dem déposé. boo ko fa déposé. moom bailleur bi du laal xaalis bi te du la mun a parce que fayoo ko. comprendre nga li ma la mhm. te bu la attaqué parce que fayoo ko bu ngeen demee tribunal da nga nan refuser il a refusé accepté euh, respecter réglementation kon facilement 2 à 6 mois de prison mun nako fa dal mom mii nga xam ne dem tribunal pour né da nga da nga koo lu nga wara a 1 mhm. un million cinq cent francs amane mun nako fa dal kon bailleur bi amul pexé bu mu def tay ji ba bu bañee jël amna na problème mënulaa génnee parce que pour nga génnee nit conditions c'est très compliqué quatre conditions lañ mëna a locataire. ban ak ben benn bi moy locataire bi tok un mois fayu la mais locataire bi jël xaalis yobou ko caisse de dépôt yore reseem mënoo wax né fayu la. Mm. té kenn nit rek mo mëna a locataire moy juge. Mm. du borom kër du huissier. tant que juge bi deful ordonnance d'expulsion bi mbind ko ne ki dañ ko génnee huissier bi ci boppam amul droit ne damay génnee ki nga xam ne mooy locataire bi kon premier cas mooy fayu la hmm. bu la fayul yow bailleur bi li nga mun mooy nga saisir juge bi da ngay jël huissier huissier bi ñëw ci waa ji ne ko ah sama bailleur kat nee na da ko amee un mois hmm. soo ma fayul convoqué naa la tribunal dans 30 jours jour boo demee rek juge bi day wax da ngay génn parce que fayoo hmm. kooku mooy benn condition beneen condition bi mooy borom kër gi ne man dama bëgg a dëkk ci kër gi lii la condition d'abord il faut ngeen nekk période triennale maanaam koo xam ne dafa dugg 2023 1er janvier 1er janvier 2026 ci lay am 3 ans donc 6 mois avant 1er janvier 2026 ci nga koy jox congé pour que mu génn 1er janvier 2026 soo ko fàttee ba mu des 5 mois il faut nga 1 premier janvier beneen troisième année bi muy deux pour nga mun koo jox feuille bi valablement donc kooku une condition de date beneen condition bi mooy ne yow ya ko mun demander pour yow wala sa dom, wala sa dom soxna wala sa wayjuru soxna wala sa propre wayjur mais mënoo demander nit génn sax parce que da nga bëgg a dugal sa frère wala sa jarbaat sa frère jumeau sax mënoo ko dugal hmm. pour ne da ngay génnee té bo waxé loolu ba paré nga né Eh, sama dom moy dug da ngay wax sama dom ni la tudd bulletin naissance am li ak li ak lii yeb joxe detail yeb ba pare su fekkee kooku nga wax ne mo fa wara dug dug dug fa mhm. da ngay rembourser waji 4 millions 800 mille bu don 200 mille par mois la lay fay 24 mois de loyer su dee ya fa ya fa dëkk wala kooku dëkk fa mhm. mais génn avant 2 ans d'aller rembourser 4 millions 800 mille bu don ne 200 mille francs ngay fay location légui benen bi ci nek moy tay ji deuxième troisième cas de figure xam nga nee naa premier cas de figure ku fayul. Mm-hmm. da ngay saisir donc juge juge bi rek ko mun a génne. deuxième cas de figure mooy nga def congé juge bi rek ko mun a génne bu congé bi jeexee troisième cas de figure nga ne da ngay tabaxaat. Mm-hmm. benn rek lañ nangu moy nga rajaxé kër gi tabaxat mais bu féké né da ngay defar ay carreaux wala da ngay defar ay aménagement wala yoy mëno ko génne té boo rajaxé kër gi di tabaxat kenn amul droit dëkk ci kër ga kudul ki nga xam ne mooy gardien te pour nga def loolu da ngay bind da koy bind feuille boo xam ne da nga koy jox huissier bi koy indi ne architecte bi diw la lii mooy numéro téléphone sama autorisation de construire mi ngi nii numéro baa ngi nii yeeg yëpp bu fekkee lu loo xam ne architecte koy liggéey da ngay wax ne ki nga xam ne moom mooy entrepreneur bi diw la adresse am a ngi nii téléphone am a ngi nii et léegi nag boo boo rajaxee kër gi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñooy prioritaire bu dee da ngay tabaxaat ba ngay waat soo ko luyee ñeneen. Mm-hmm. da ngay rembourser million millions 800 mille bu fekkee ne euh, euh, joxawaatoo leen ko. est-ce que foofu mënu cee ut porox ndoll pour delloowaat prix ba fa mu ne woon. waa xam nga bu fekkee ne dafa tabaxaat kër gi. Mm-hmm. balaa mu ko mën a luye day def li ñuy wax surface corrigée ndax yoon nee amoo droit luye kër te defoo surface corrigée. Mm-hmm. boo defee surface corrigée doo ëppal. parce que yoon mooy wax lan lañ def ci investissement ci kër gi kër gi nan la yaatoo. ban zone la nekk ndax nan lañ ko tabaxee. loolu mooy surface corrigée waaw loolu lay surface corrigée. d'accord donc zone yëpp lay jël en compte. Mhm. Euh, par exemple tey jii da ngay gis ñu ne la euh, boo ma yeggalee ci quatrième kii bi. waaw waaw après ma wax la luy surface corrigée. Mhm. donc trois yooyu. Mhm. benn waa ji fayul nga laaj juge ñaar da nga caa bëgg a dëkk nga nga jox ko congé laaj juge ñetteel ba nga nga war a rajaxe kër gi tabaxaat ko nga laaj juge. benen bi moy bu ne kër gi dafa nar mab ci kaw nit ñi. Hmm. protection civile donc ministère de l'intérieur intérieur préfet mun nañoo génne ña dëkk ci kër ga pour sauver hmm. à part ça amul ben borom kër bu mëna a ben locataire juge kese moo mun a locataire donc képp ku ko xamné ne borom kër nga wax génnal bul génn ñëwal commission ñu wax la ndax ya nekk ci yoon ci yoon.